wa ihtisaaban lahu ma taqaddama min zanbihi wa mbokki mbokki ñi di seetaan chaîne El Vision seen mbokk Omar Samb mo ngi leen di di leen ziar bu a di leen seen di ziar ziar bi yàlla suñu diggante ak yéen euh, mu mel ni ñu ñëw tey waxtaane bi muy actualité li nga tey jamono ji foo tourné ñu ngi waajal li nga xam ne moom mooy woor muy sëxu ramadaanu mubaarak balaa ñuy woor nag kenn ku nekk war na xam lan mooy koor ak kan moo war a woor moo tax tey ñu dikk pour waxtaan ak yéen ci lan mooy woor waaye ak kan la woor war ndax am na ñoo xam ni nekk nañ ay nit nekk ay mukallaf waaye woor koor waru leen d'abord maanaam li nga li nga war a njëkk xam mooy kan la koor war nit ki nga xam ni moo xam góor nga moo xam jigéen nga su juróom yi dajee ci yow rek woor war na la bu dajee ci yow woor war na la moo xam góor nga moo xam jigéen nga waaye juróom yi benn bu ci mànke ci yow rek woor wàcc na la bu ñu waxee nag ki koor war a pare wax nag lan mooy nga nee li koor motax ñu ñëw tay wax li nga xamni mom moy wara ki nga xamni mo wara wor moy kan moy ki nga xamni juroom yi bu dajé ci mom bi ci ñëk moy an yakuna musliman premier moy mu nekk julit julit xaqan ko xamni duguna ci diinul islam rek wor war na la kon ki gul julit koku wor wor ko même bu woré tamit yalla neen duma ko nangu kon bala ngay fexé nga ni damay wor fexel nekk julit damay wax ni amna ño xamni ñi ngi wor weer yi su ñëwé ñu ngi ray seen bop di woor ñu nekk ñu ay julit lutax nekk ñu ay julit parce que bu weer wi jàllee ñoom du ñu jëf julit duñu wax wax julit duñu du ñu julli du def lo xamni yalla loolu santane té bala ngay nekk julit nak faaw ngay julli yoonent bi dañ ko laaj ni ko lan mo dox suñu digënté ak yéefar yi mu ni li nga xamni mo dox suñu digënté ak yéefar yi dal len rek la moy julli muni kep ko xamni faman aqamaha faqat aqama din kep ko xamni yaangi julli yaangi taxawal diine kon bok nga ci diine ji kep ku ko bàyyi nag bokkoo ci diine ci kon premier bi mooy nga nek julit ñaarel bi moy nga nek mukallaf mukallaf ci olof mom lañ wax muskallaf waye baatu arab la ñu wax mukallaf mukallaf moy lan ak moy kan Moy ki nga xamni dañ ko togg jëf ki nga xam ni dépassé na at yi nga xam ni mu kallaf toll na ca maanaam ki nga xam ni dépassé na at yi nga xam ni soo ko dépassé rek ñu commencé laa bindal ay tuyaaba waaye commencé laa bindal ay bàkkaar li war sa yaay daf lay war li war sa baay daf lay war ci wàllu jaamu yàlla ndax boo nekkee xale euh, nekkoo kallaf kooku jaamu du ko war maam yi jaamu yàlla du ko war na koor bu ci nekk dinañ ñëw wax la mooy ban ñetteel bi mooy nga nekk koo xam ni ku am kàttan nga pour woor ki am kàttan pour woor mooy kan mooy nga xam ni wér na su wooree woor wi du ko sanal waaye nag ñi nga xam ni moom la mbayeen def di bu weeru koor gi ñëwee ñu commencé porter malade di tappale di wax li nga xam ni maanaam damaa am ulcère wala dama am estomac yooyu nga xam ni mbayeen yi ñoom la ñuy def boobu waxuñu ko mooy nga ni leer nañ ko ni mom bu wooree moom woor gi arrangé wu ko ci wér gi yaramam kat dañ nan ko yow mono wor koor gi wàcc na la waaye nag bis bu amee li nga xam mom moom mooy kàttanu woor day fay bis yooyu ñu aree tuuti ci mukallaf mukallaf dafa am ki majeur mooy ki majeur ñu wax ko ñu wax ko ci français ki majeur majeur nag buñ ko waxee mooy ki nga xam ni dem na ba ci buñ koy buñ koy xiyaas mooy koo xam ni am na fukki ak juróom bu dee bu dee bu dee góor la bu dee jigéen ñu ne am na 18 ans wala mu sax karaw naq wala mu leneen wala mu commencé gént di sëy kooku la ñuy wax mu kàllaf kooku majeur na kooku li war waajuram ci woor da koo war moom pour mu woor ñentel bi moy ko xamni ni muqiiman la ko xam dafa sax tukki wul yaangi ci dekk bi demo fenn ba pare julit nga mu nga ba pare am nga katanu wor ba pare yaangi ci dekk bi su boba nak wor da war yow so worul yat bi da lay dal su motax bu fekke da nga nek ko xam da ngay tukki nak ngay tukki tukki bu sori dañ nan la ah yow kat wor gi wacc na la woor gi wàcc na la moo tax yàlla wax ni fa man kaani minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar képp koo xam ni danga dem ba danga feebar walla nga am ngantal tukki nee na su boobaa jéggal naa la woor wi nee su boobaa neel bàyyi ba bis boo xam ne am nga ci kàttan wala bis ba nga wéree wala bis ba nga nekkul ci tukki nga fay koor googu juróomeeli sart bi mooy koo xam ni alxalwa alxalwu minal alxulwu minal mana minal uh, mawaani alxulu minal mawaani yi ki nga xam ni maanaam yi tax yi yi yi daje ci nit ba tax ñu tere ko jaamu yàlla dajewul ci moom bu fekkee jigéen la bu fekkee jigéen loolu nag ci jigéen ñi lay ëppee jigéen bu fekkee dafa nekk koo xam ne wasin wu bees la di génne traite boobu noonu deretu wasin su boobaa dañ naan ko yow kat da muñ koor gi ba deret gi arrêté nga doog a commencé wóor ki nga xam tamit fay gis règle muy fay gis mbaxam kok tamit du wor bis bobu mo nga xam ni ci lay gis mbax gogou ak ki nga xam ni moom nifaas la muy wasin waxna naa ko léegi ñooñu euh, ñom lañ tere pour ñu wor ñom lañ may ñu baña a waye waaye képp ku dul yow wor war na la kon juróom yi bu dajé ci yow ngew nga bañ ñi do wor kon yaa jàppee sa bopp jullit waaye nekkoo jullit yaa jàppee sa bopp jullit waaye nekkoo jullit am na ñoo xam ne am nañ kàttan ay jullit lañu ñu ngi ci dëkk bi demuñu fenn am nañu amuñu lenn lu leen tere woor muy amuñu ngànt ba pare wooruñu ñooñu nag lañuy wax ñi nga xam ni mooy ñooñu lànk bañ a woor yowmal xiyaam ñi yàlla nar a mbugal ëllëg ñoom ci lañ bokk kon weer waa ngi noonu di ñëw. di teersu kon gaa ñi déglu leen ñu wax nag li nga xam ne moom moo war ci weer wi weeru koor dafa am ay ngëneel yoo xam ne moo ci nekk borom bi nee na weeru koor man maa ko moom asawmu lii wa ana ajizi bihi yàlla nee na koor daal man maa ko moom kenn moomu ko nee na jaamu yàlla yépp mën naa ko jox ab malaaka mu fayal ma wala ku ma neex mu fayal ma waaye nee na woor moom man maa koy fayal sama bopp ndax lu tax parce que jaam bi dafa bàyyi lépp ngir moom koor kenn mënu koo def ngir ngistal ndax lekk ak naan ngistal moom amu ci bàyyi lekk bàyyi naan amul ngistal julli mën nga koo def parce que da ngaa gis nit ñi julli ngay julli nga ñëw fekk nit ñi julli nga julli saraxe mën ngaa fekk ñuy saraxe nga am lo saraxé nga nga nga bëgg a ni man damay saraxé nga saraxé aj makka mën nga wane ni man dem na makka dem na am na ñu bëri ñi ngi aj makka woné wula waaye wor nak mom yalla néna kenn mënu ko def ci ngistal ndax boko défé ci bit tamit bo duggé ci biir mën laq tu lek té kenn du xam kon ki wor mom rek mom mo mëna wat ni man wor na bayi lek bayi nan lan moy wor moy nga bayi lek bàyyi naan la tàmbalee ca xarub fajar ba keroog jant bi di so dangay bàyyi lekk bàyyi naan bàyyil mbooleem loo xam ni tamit dafay dog koor da koy bàyyi kañ min tuluuxil fajiri ila xurubi shamsi fi jant bi commencé fenk ba fi jant bi di duggee doo ci lekk doo ci naan borom bi nag nee nag képp koo xam ne def nga loolu nee na def nga li ma la sant jaamu nga ma jaamu bi ma gën a bëgg ndax weeru koor dafa nekk weer woo xam ne weeru ngëneel la weer wi nag xam naa ni arrangé wul jaween yi ak mbayeen yi ak mbuubeen yi waaye dafa nekk weer woo xam ne weeru ngëneel la yonent bi nee na su ngeen xamoon lu nekk ci weeru koor di ngeen ñaan yàlla weer wu nekk nekk weeru koor su ngeen xamoon lu nekk ngëneel yi nekk ci weeru koor di ngeen ñaan yàlla weer wu ñëw rek ñu ni weeri weeru koor la ndax ngëneel yi nekk ci biir ñu ne ko lu tax mu ni parce que weeru koor bu ñëwee yàlla dafay tijji buntu aljana yépp daal ni lu waay def rek lum tuuti tuuti tuuti mën na la dugal aljana dañuy tëj buntu safara yi nag tëj buntu safara yi kon weeru koor bu ñëwee dafa nekk weer woo xam ni weeru jaamu yàlla la moo tax ñu ni weeru koor dafa nekk li nga xam ni njariñ ci nekk mooy dafa bari dafa am ay hikma yoo xam nek na ci biir wër koor yoo xam tu yu bari la bi ci ñëk moy tathiru nafsi moy defar gi muy defar sa bakkan dafa lay def nga nek ku sel so gisé ñi nga xam sax daaw ñu julli ci wëru daaw ñu julli budul wër budul wëru koor su wëru koor ñëwé nga gis ñu commencé jënd si jaada jënd satala commencé di julli ndax lan wëru koor mo ñëw don dégg sax julli mom ci wër yëpp lañ ko wara def waye la siyamaana ci wëru koor ndax boo ci jullee benn rakka bokkul ak rakka yi ngay julli budul weeru koor yonent bi ne weeru koor loo ci def rek dañ koy ful ba mu nekk ay junni junni ñu dajaleel la ko jox la ko moom la gars yi di wax naan weeru promotion waaye ëpp na sax ëpp na sax pour promo ëpp na promotion ndax la ci nekk ci ay yiw kenn xamul nu mu toll bi ci njëkk rek mooy day sellal sa jëmm weeru koor day sellal sa jëmm koo gis nit ñi duñu mer benn da ngay am yërmande ci doomu aadama yi da ngay am euh, xol bu rafet ak lan wa tahzibiha daf koy yar dalay yar weeru ko nit ñi duñ wax sax lu bari bari na ñoom mbuubeen yi ak mbayeen yi ñoom bu ñu wooree moom li ñuy fas yéenee def mooy mooy mooy nelaw rek nelaw rek donte que sax jaamu yàlla gi baax na ci nag waaye nelaw yi nag moom mbayeen yeeg mbuubeen yi ñoo koy jël te nag am na sew sew bu ci nekk yonent bi nee na naw mu saa imi sax ibadatun yonent bi nee na woor nee na nelaw yi muy nelaw sax dama koy bindal tuyaaba jaamu yàlla la jaamu yàlla lay doon ci moom kii nelaw ak ki yor kurusam di tasbeex yonent bi nee na nee na ñoom ñaar ñoo bokk yool bi ma leen di fay yow boo yoree sa kurus di werd te wóoroo nee na kii woor yool bi ma koy fay yow mi nga xam ne yaa yor sa kurus wala yaa ngi julli ta wooro yool boobu duma la ko fay kon naw mu saa imi ibadatun jaamu yàlla la bokk na ci njariñu weeru koor tamit dafay defaraat jëmm yi wa tazkiyatuha dafay sellal xol yi dafay sellal xol yi da ñi dañuy am yërmande ci doomu aadama dañuy nangoo joxe lekk dañuy nangoo joxe naan euh, dangay gis ñoo xam ne dañuy nekk ci mbedd yi sax di defar ay ndogu ndax lan weeru weeru yiw la lu ci waay def yàlla fulal la ko ñii di nekk ci mbedd yi di joxe ay ndogu ndax lan weeru weeru yiw la motax da fay wa tazkiyatuha min al akhlaq sayyi'a day tax nit ñi duñ soxor ko da fay dindi soxor ci doomu adama so woré ba ngon jot sa mbokku woron comme yow nga daal di jël ñaari tandarma jox ko mu dogé ko yonent bi néna képp ko xamni ni jox nga ni ku wor lu mu dogé sax néna yow momu sax fay wala wor nga mu woor da nga ci am benen bi tamit ci wéru koor moy dafay dindi iñaan ci doomu aadama dafay dindi soxor ci doomu aadama soo wooree nit su wooree du soxor dafay am xolu yërmande nit ki su wooree tamit du am maanaam siis du nekk ci moom siis siis maanaam nit ki ñëw war a lekk ci seen kër wala nga war nga war ko may ci ci lekk gi nga siis ko ba mu dem ne ne weeru koor nag dafay dindi loolu dafay dindi siisaa ngi ci doomu aadama ba pare dafay miinal jikko yi jikko yu baax maanaam dafay miinal nit ñi ay jikko yu baax maanaam day koo gis mi ngi yor kurusam di jéem a di jéem a ñi daawul werd sax dañuy werd ñi daawul dem jàkk ji sax dañuy dem jàkk ja dafay miinal nit ñi li nga xam ne mooy jaam yàlla ba pare daf ñuy jàngal nag as sabr mooy muñ nit ki ñu ngay xiif lool mooy leer nga gis ndox mi ne sedd guyu nga gis ceeb bi niin lool waye nga mën ko muñ ndax lan yalla la sante pour nga wor kon lolu dafa lay jangal muñ mom wéru ko benen bi moy dafa lay jangal li nga xamni mom moy lewet da ngay lewet do mëna xulo do def dara do tal sax xulo mo ra yéen sallallahu alayhi salaam nee na képp koo ni nga ba wéru ba ngon jot wala nga wor ci digg bëccëg wéru ko ku ñew du xulo ak yow sax ne ko ana saimun ana saimun wala inni saimun inni saimun nee ku ñew bëgg la andil dara lo xamni ciow la nee wax ko man dama wor dama wor kon mbok yi ñu ngi leen di ñaan di ñaan yalla yalla may ñu ñu fekke wéru koor gi ñu dugg ñu ngi ñaan ne képp koo xam ne fekkee nga ko nang ko wor comme ni ko man shahida minkum shahra falyasumhu képp koo xam ne nga wéru koor gi rek ah, na nga fas yéene ko ndax ay ci nekk kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim waaye nag bu weeru koor gi jotee tamit caaxaan yi nañ def ci bëccëg bëccëg budul weeru koor ñu bañ ko def ci weeru koor ndax weeru koor weeru yiw la donte que caaxaan sax ci bëccëg yëpp la xaraamee waaye rawatina bëccëg weeru koor ndax dañuy wax ni bi xisami zamani wal makaani taadimu taatun ma al isyan bërëb bu nekk na mu màggee rek boo ca moyee yàlla noonu lay màggee boo ci jaamoo yàlla noonu lay màggee weeru koor boo ci boo ci moyee yàlla boo ci moyee yàlla du bokkul ak mooy yàlla bi nga moyoon bu dul weeru koor day gën a bari day gën a bari mi ngi mel ni nga dem ba tribunal ba rek saaga fa procureur ate bi ñu la doon atte day gën a diis bokkul ak nga dajeek moom ci mbedd mi saaga ko kon euh, ñu ngi ñaan yàlla weer wi ñuy dugg yàlla yàlla def ko mu nekk weeru yiw weeru sutura weeru barke weeru xéewal weeru njéggal tamit ndax yonent bi nee na ah man day yéem na ma man de yéem na ma ñu ne ko yonent bi lu la yéem mu ne koo xam ne weeru koor dem na ba ñëw bàyyi kook ay bàkkaar wala ñëw na ba dem bàyyi kook ay bàkkaar nee na weeru koor bu ñëwee ba dem warul daa wàcceeg benn bàkkaar danga ngaa war a set wicc comme ni sa yaay ni la sa yaay juree woon kon mbokk yi weer waa ngoogu ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci ak jàmm euh, ñu génn ci ak jàmm ci fekk ko tal ko woor ko lépp loo xam ni rek yiw la ci biir weeru koor rek yàlla yàlla defal ñu ko defal ko mboolem jullit lépp lu ci nekk ci yiw tamit yàlla yàlla wesaare ko ci Sénégal wesaare ko ci mboolem réew jullit yi ah, ki doon wax mooy seen mbokk Omar Samb bu Cheikh Tidiane maa ngi ñaanal ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu